Xaadimal xalif général des Mourides ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér te ànd ak rakkam ak njabootu sëñ Tuubaa gi yëpp rawatina bi sëñ Fàllu ñoo ngi ziar bu baax a baax a baax sëñ abo ba sëñ abo bu sëñ Fàllu xalif général euh, xalifa euh, xalifa kër sëñ Fàllu di nuyu tamit sama sëriñ sama xarit sëñ Basiru Fàllilu sëñ maamu rek njabootu sëñ Fàllu gi yëpp di nuyu njabootu sëñ Tuubaa gépp di nuyu nag nag bu baax a baax a baax a baax bonk internet yi di leen ñaan pour ñu ñu ñëw ñu waxtaani réew mi li nga xamante ne moom lañ ñu fi digoon te gisuñu ko. te gisuñu ko ah du moins man boog gisuma ko te defe naa ne bari naa ci ay morom ma bëggoon nag tamit ñu ñëw teew si ñu ñëw teew si ñu waxtaanee réew mi hmm, comme niñ koy defee parce que jërëjëf soxna Yaasin ñu ngi leen nuyu bu baax a baax a baax hmm, ñoom soxna Adama ñoom Souleymane Sow maa ngi leen di nuyu bu baax hmm, ak mbokk internet yëpp di wax ni que fii ci. duuma gars yi ñu ngi ñëw gars yi ñu ngi ñëw parce que tey dañu war a waxtaanee dëkk bi kon ko tey mooy dernier jour campagne bi te am na ay manquement yu bëree bëree bëree bëri yoo xamante ne mu ngi am ci euh, ci euh, kii bi nu mu tuddati ci élection yi yu jublu si nii am nañ ay euh, manquement yu bëri moo tax ñu buggoon tamit nit ñu ñëw dugg si pour ñu waxtaanee ko. xam naa gars yaa ngi ñëw dañuy dañuy jeexal ay kii rek léegi léegi jërëjëf jërëjëf soxna Yacine ma ne ko yooyu gars yaa ngi ñëw léegi ñu waxtaani ko soxna Fili yi Fili ñu ngi leen nuyu Seyda ñu ngi nuyu bu baax waaw mu ne ko di di nuyu nag ñëpp bu fekkente ne mën nañ rek s'il vous ñu partager ko ñi nga xamante ne tam dañu bëgg pour dugg pour euh, intervenir après. dinañ dugg bu fekkente ne demandé nañ rek dañ leen di dugal ah bu ñu bësee ci ñaari kii yooyu dañ leen di dugal ñoom ñu intervenir ci lu ñu xam ci ci ci dëkk bi ah ñi nga xamante ne waaw waaw ma ne ko ñi nga xamante ne euh, mooy Benno Bokk Yaakaar opposant ak lépp képp ku bëgg intervenir rek mun na demander pour intervenir fii démocratie moo fi am hmm, muy fii ci luuma pourquoi pourquoi ñu tànn luuma parce que tamit euh, lu bëri tam ci marché yi lañ koy lijjante am na ay affaire xew-xew yu bëri yoo xamante ne bu amee ci marché yi lañ koy lijjante rawatina mbiru élection te nit ñaa ngi nit ñaa ngi coow rek nit ñaa ngi wax rek ku nekk ngi am lu mu lu ko naqari surtout et surtout li gën a doy waar moom mooy problème mu. Euh, waaw kii de sama cousin la rawan ak sama grand frère Sega ñoo ngi leen du nuyu bu baax a baax waaw ma ne ko surtout nag li li gën a naqari nit ñi moom mooy affaire carte d'identité yi nga xamante ne actuellement nii yembul nit ñi jotuñu seen ay carte d'identité nit ñi jotuñu seen ay carte électeur mooy comme lu ko suñu frère di waxee Pape Alé Niang nekk citoyen sa biir dëkk ba pare euh, nekk clandestin ci biir dëkk bi. parce que amuloo carte d'identité wala nga war a voter am droit de vote ba pare ñu ñu xañ la ko te jël suñu cinquante deux milliards yoo xamante ne dugal nañ ko ci carte d'identité yi te ba léegi nit ñi ñu ngi am problème pour euh, régler seen euh, seen problème vote hmm? wala ñi nga xamante ni dañu bind ci ay siège ñu yóbbu leen ci yeneen côté yooyu yëpp bëgg nañ ko waxtaanee ak li ñuy wax ne que yaa ñu ko waxoon waaw yaa ñu ko waxoon nekk benn kii boo xamante ne. Euh, li nga xamante ne moom lañu ñu suñu président son excellence monsieur Macky Sall li nga xamante ne moom la ñu waxoon depuis le départ li nga xamante ne moom la ñu waxoon depuis le départ bi ñuy jël réew mi waxoon ñu ko ne dina def euh, cinq ans dem defi sept ans am na ay points yu bëree bëree bëri yoo xamante ne dinañ ci ñëw dañuy xaaragum gars yi ñëw parce que sànq lañ ko waroon def mais ak euh, direct Pape Alé bi ak yenn direct yi amoon ci. ci stade yeeg campagne bi di wër ak yooyu moom moo taxoon ñu xaw a sax yéex a commencé mais ñu ngi nuyu ñëpp ah, ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaan yàlla message yi fekk leen ci jàmm. di euh, kontaan bu baax a baax a baax ci dal gi te tam di ñaan yàlla ñu dugg ci élection yi ci jàmm ak salaam xam nga teel dem voté ji nag ñu voté par force hmm, teel dem voté ji. waaw tey la mën a ñibbisi ci suñu kër waaw waaw waaw wanteer terrain yi waaw gis nañ ko lool <laughs> loolu am na ci solo waaw ma kii la mbiru mbiru mbiru kii la mbiru euh, mbiru marché la ko am loo bëgg jaay ak yëpp mën ko dugal parce que dañuy waxtaan rek entre ñun la entre ñun la groupe bi buñ ko créé pour pour lépp la daal waaw man bi ma jógee di ci di ci dox pour lépp la bu ñu demee ba toll ci ay trente cinq mille personnes cela veut dire que am na fenn fu muy yëngoo bu baax. Hmm. te te kanam sax la jëm ndax yenn saa yi lañ gars di sabote ak yooyu bon waaw di wax ne que dafa am yu bëree bëree bari yoo xamante ne dañ ñu ko diggoon te ba léegi France ak yoo xamante ne dañ ko def mel ne dañuy sabote dëkk bi xam nga loolu la nit ñi di taxaw seetlu taxaw seetlu moom mooy moom mooy lan war a dem ci mbañ gàcc gi xam nga war a dem pour voter ji. tamit war a nag tànn nag la bon candidat bu fekkente ne c'est son excellence monsieur Macky Sall moom moom la ñu war a tabaat ñu tabaat ko mu bañ am benn coow boo xamante ne daf ciy am mais nag da lépp jaar yoon bu fekkente ne tamit set euh, c'est une autre personne tamit xam nga bu nekkee beneen candidat la ñu war a tab tamit suñu borom bi jox ñu ki nga xamante ne moom moo gën ci réew mi te ki nga xamante ne moom moo gën ci réew mi ki koy tab kooku moom du juum. ba ko fiy def kay bu def bu fekkente ne dem na ba ci biir mu am ay manquement fekk ne moom moo ko fi tegal boppam parce que Macky Sall bi ñu fi am tey tamit sunu sunu borom bi moo ñu ko joxoon moom moo xam ki muy teg njiit du léegi nag bu fekkente ne dañuy wax ne que c'est la somme des erreurs qui font l'expérience ñu jéem a xam ne que fi mu nekk nii def nañ benn expérience mais ci lii la yóbbu waaw ba ne ko def nañ benn expérience ci lii la ñu yóbbu moo taxoon tey ñu bëggoon a waxtaanee ay points yu bëri mooy li ñuy wax ne que yaa ñu ko waxoon hmm. euh, léegi léegi nag ci biir yaa ñu ko waxoon boobu nag moom ah, dafa bëri ay affaire yu bëri yoo xamante ne dañu ko waxoon te ba léegi gisuñu ci dara hmm. moom mooy par exemple dès le départ ah, ñu wax ñu ko euh, un gouvernement sobre et vertueux ah, loolu gisuñu ci dara. ñu waxoon na ñoo dañuy def cinq ans dem ci sept ans <laughs> loolu mu ngi fiy tege loolu lu ñëpp gis la ñu waxoon ñu fi ay affaire liberté de la justice peut-être que ne am na ñoo xamante ne <laughs> liberté am na foofu pour ñoom mais nag tamit am na lu bëri loo xamante ne tamit gisuñu ko xam nga parce que bu ñu demee ba nga xamante ne un président de la république dafay taxaw di wax ne que am na ay ay ay dossiers yu bëri yoo xamante ne ñu ngi fi. man maa ci teg sama kudd loolu dafa dafa garaaw loolu dafa garaaw parce que alal bi alal lu ñëpp la xam nga léegi nag baadoole bi nga xamante ne baadoole bi nga xamante ne ah, mënta wax mënta baatam kenn du ko dégg kooku moom moo ciy sonn mais ki nga xamante ne moom moo gën a siiw moom mooy am chance pour pour génn ci parce que gis nañ fi ay ay cas yu bëri gis nañ fi la cas de Thione loo xamante ne économie dëkk bi la doon la doon suuxal xam nga 43 milliards yoo xamante ne ay dollars ak ay kii ñoo ñu mënuñu génn fi mu nekk nii ñëw biir Europe mënuñu génn dem États-Unis yow nga jël teg ci sa loxo parce que yaakaar nga ne kooku am na lu mu la mën a indil au niveau électoral hmm. gis nañ fi le cas de sunu Cheikh Cheikh Béthio gis nañ ko fi ñu ñuy tudd ci ay assassinat ba léegi ñu ngi nekk en liberté léegi bu ñu waxee liberté de la justice loolu dafay xaw a yéeme lool est-ce que dinañ ko war a mën a nangu parce que tamit wax ji tamit bu ñuy wax tamit nañu wax lépp nu mu nu mu tëddee hmm? gis nañ fi mille emplois yi nga xamante ne diggoon nañ ñu ko fii cinq fi mille emplois yooyu dama yaakaar ne que waa France lañ ko defal parce que ay ay gouvernement ay ay ay entreprise yoo xamante ne dañ doon dem en faillite ñu mujj leen tey. sur pied loolu c'est c'est c'est c'est avec le président Macky Sall la am la la fi amee parce que yooyu loolu noonu ñuy def noonu bu fekkoon te ne dañ ko defoon jëmmale ko ci sunu ay entreprise jëm leen na encadré même bu fekkee dañuy dem uti ñoom marché feneen mais ñu jox leen doole boobu ñu liggéey suñu biir dëkk defe naa ne emploi yooyu ci biir dëkk bi lay yem au lieu kon ñuy dem di importer ah ay ay. Euh, ay main d'œuvre étrangère yoo xamante ne dañuy jëlaat yëpp xam nga sans impôt sans dara delluwaat dellowaat ko seen dëkk ah le problème aussi des vingt cinq ministres yi nga xamante ne euh, son excellence le président Macky Sall daf ñu ko waxoon depuis le début xam nga wax nañ ñu ko vingt cinq ministres laay laay gouverner mujj gi ñu ci ay quatre vingt ministres te ba léegi ba léegi amul kenn koo xamante ne dégg na mu ñoo toog la télé xam ah, pour le respect des citoyens nga leen leen maa waxoon lii kat mais lii moom ma dab lii expliquer sa population loolu amul te population bi ñoom ñoo koy fay ñoom ñooy fay ministre yooyu ah bi ñu la koy bi ñu la koy jox dañu yaakaaroon ne que yow di ñu defal li ñu bëgg ah, loolu amul ñu waxaat ne déet na waay ñu nga ñëw créer fi ay CREI dekkalaat fi CREI dekkalaat fi OFNAC nag mooy problème mu kudd boobu nga wax ah, ci sa ay ñoñ ñooñu nga xamante ne da nga waxoon ne que liggéey leen def leen ay inspection bu paree mutu sax ngeen ma koy jox mun ngeen ko jébbal procureur de la république ñooñu ci boppam dañu mujj génn dañuy dañ leen ci mujj génne xam nga ku mel ni Nafi Ngom Keïta ñu dàq ko ci ah pour lan parce que defoon na ay euh, defoon na ay. Euh, inspection bi ni mu waree war la ko ñëw jébbal dem ba jox ko procureur de la république nga dàq ko parce que ci biir rapport yooyu amoon na sa tour frère Petrotim mu ngi woon bëgg leeral dossier boobu nga dàq ko yii sa ay xarit yi nga xam ne dañu sës yow moom mooy c'est le cas de Cheikh Oumar Agne du coup ay kilo ñebbe quatre mille cinq cent ay surfacturation yoo xamante ne demul fenn xam nga <laughs> yooyu nga ñëw dàq leen. nga ñëw dàq ko ndax loolu dossier ba léegi sénégalais yi xamuñu dara le cas du du du port autonome de Dakar ah, mu nekk euh, nu mu tudd euh, Kanté hmm, euh, Cheikh Kanté plus de cinq cent milliards yoo xamante ne un journaliste bu ñuy wax kii Moutbane ah moom moo ko porté plainte et petit frère <laughs> Algor ñoo ngi lay nuyu. xam nga le cas de nu mu tudd euh, euh, nu mu tudd euh, Cheikh kante port plus de cinq cent milliards yow nga ñëw taxaw ah un journaliste ñëw génnee dossier na leen lii yóbbu ko ci procureur na leen lii justificatif yi la ah, ba léegi kenn kenn entendre ko ay ay ay ministre ministre des finances ci boppam dem di di accuser le ministre de l'enseignement supérieur ah ci kaawu université virtuelle yi ak yooyu plus de seize milliards yoo xamante ne dañ ko amee ñooñu yow nga bañ ni doo ci wax te le ministre de ministre des finances dafa ne moom du début sa xaalis parce que loolu nañ ko laaj euh, Mary Teuw Niane ndax Mary Teuw Niane am na ay dossiers yoo xamante ne ah mu ngi euh, ay surfacturation yoo xamante ne autant pour moi ay surfacturation yoo xamante ne ça dépasse plus de euh, plus de plus de six seize milliards kon moom loolu foog mu am leeral ba léegi kenn waxu ci le cas de Mbaye Niang les vingt neuf milliards ah, loolu kenn waxu ci kooku démissionné nga génneewaat nga delloo waat ko place kenn waxu ci ah. léegi nag bu fekkente ne yooyu yëpp dafa am ah, yow nga ñëw teg ci sa tànk. Hmm, comme comme comme ni mu ko wooyee teg ci sa kudd ba pare wëlbatiku di jàpp opposants yi di tëj ah, Sénégal léegi ku wax dara sax ku wax dara sax nga ne non kii warul wax commissariat bi nekk ko ñoom jël ko entendre ko ba léegi kenn nangootul ñeme ña wax sax dara lu jëm ci affaire gouvernement bi bonne gouvernance bonne gouvernance ak yooyu loolu dafa xaw a doy waar ku am loo xamante ne daf ko war a dénoncer euh, contre le régime actuel ah ñu ñu ñu kii dafay mel ni au temps doon wax ay affaire u Sékou Touré waruma sax dugg ci yenn yenn kii yeneen dëkk yi mais wax suñu problème dëkk mais temps boobu ku waxoon dara um, nga dem fanaani fële jàllutali euh, waaw seen seen prison boobu loolu dafa mel ni loolu moom moo amaat Sénégal et loolu c'est affreux c'est affreux parce que ñun dañu yaakaaroon ne bokk man bokk man man damay wax ne que dañu yaakaaroon ne Euh, kii bi muy ñëw euh, son excellence Macky bi muy ñëw fii parce que 2011 dañ ko dalal dañ ko dal à Bologne di xeex pour mu kii 2011 bi mu fiy ñëw ak Arouna Coumba Ndoffène Diouf xam nga ñu dalal ko def lu nekk xam nga pour moom mu falu bu ñu demee tey ba am xol boo xamante ne dañuy ñëw taxaw di ci wax ak yooyu cela veut dire que ne am nañ lu ñu metti lool lool lool tas na yaakaar. oui tas na yaakaar loolu il faut qu'on se le dise dafa ni nag Sénégal boo nekkee ci côté yi euh, nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñooy kii euh, comment ça s'appelle encore boo nekkee ci côté ñi nga xamante ni ñooy pouvoir bi bu fekkente ne xam nga leen wala am na sa kii Sénégal du ñu bëgg non rakku rakku kii wala diw mi nekk ci post bi sama xarit la wala rakku jabar ji sama xarit la ay affaire yu demee noonu mais loolu yorewul dëkk xam nga il faut qu'on sa regarde en face ñuy waxante ay dëgg parce que am na foo xamante ne boo fa tolloo sax da ngay wax ne que bon man sama par page na mais future génération yi war a ñëw future génération yi war a ñëw léegi si bu fekkente ne dem nañ ba nga xamante ne euh, dañuy wax ne que ci gouvernement Macky Sall ils ont manipulé vingt deux mille milliards vingt deux mille milliards ci gouvernement bi c'est c'est c'est trop et c'est affreux c'est trop c'est un peu trop et c'est affreux kenn mënul comprendre mbir mu demee noonu vingt deux mille milliards après ngay wax ne que maa fi def autoroute bi maa fi def kii mais loolu sa c'est sa fait partie du sociale da nga ko war a def par force gouvernement lu muy def daf ko war a def par force parce que son payés pour ça xam nga kenn defu ko fi volontairement ah tous ces gens là dañu ñëw xam nga dajale seen ay dërëm ak ñaar dërëm ah. xale bu ndaw bi jënd tàngal sax day fay impo xam nga lépp loo xamante ne génnee nañ ko ci Sénégal di ko fa jaay wala kii nit ñaa ngi fayale impôt ñu xam ko ñu bañ ko xam loolu lépp nag ñu dajale ko ah di la ko jox bu ñii bu ñuy romb sax. bu ñu gisee ne que yaa ngi ñëw sax ñu arrêté ñëpp yow nga romb defal la loolu yëpp xam na yow nag nga bëgg ñëw nag par exemple ñëw taxawuñu ah bu ñu waxee nga ne non da ngay da ñuy dóor amoo droit wax lii ah, dem di def ay du du n'importe quoi xam nga ñu ne déet waaye encore nga ñëw encore ci gestion ci gestion kii bi euh, nu mu tuddati sax ci euh, gestion sunu ressource naturelle fu mu nekk nii suñu ressources naturelles yi on peut dire que ne pratiquement lépp étranger yi ñoom ñoo ko jël amuñu sax benn réserve boo xamante ne dañuy wax suñu suñu sëtaati sëtaat yi ñëw sax bés bu ñu fa eggee ñoom ñu ñëw mën a ubbi mbànd yooyu ñoom ñu mën ko dundee mais nga ubbi ndaw yëpp rek bëgg ko jaay sur quinze licences yoo xamante ni kii na lenn li c'était au temps de Abdou Diouf benn foofu ñaar xaw ma ñett ci euh, Ablaye wadd douze yëpp pratiquement douze yëpp Macky sàll moom moo ko moo ko signé ak ay famiyam douze yëpp Macky sàll moo ko signé ak ay famiyam waaw jërëjëf jërëjëf soxna si waaw waaw waaw waaw dangay joo dem waaw mais gars yi ñu ngi ñëw parce que ci biir group bi la léegi gars yi nga xamante ne dañuy kii yëpp dañuy ñëw pour rejoindre ñu hmm, teegal ñëpp gars yi yëpp dañuy ñëw pour rejoindre ñu euh, ci kii bi peut-être que ne heure bii dina fekk nit ñi di profito pour dem ñii di reeri ji ak yooyu heure Sénégal mais après gars yi dañu war a ñëw pour kii nii encore tam ñi nga xam ne ñu ngi seetaan kii yi euh, nu mu tudd direct yi am à la télévision ak yooyu mais li mënti doon rek euh, live bi dañ koy def nii su ko defee après dinañ ko partager parce que dina dem ci plus presque ay deux cent et quelques groupes. te bu boobaa ni ñi nañ ko seetaan ñi nga xamante ne dañu bëgg euh, intervenir yëpp après mun nañ intervenir mun nañ dugg demander pour wax wala pour ñu bind bu boobaa tam ñu jox leen ligne bi hmm. jërëjëfati mais li ma li ma doon wax hmm, ci ci ci ci bonne gouvernance yi dañuy xool comme son excellence Macky Sall bi mu ñëwee par exemple ñu wax ne que euh, affaire affaire ambassadeurs yi foofu la commencé di nommer ay ambassadeurs di wax ne mu ngi wàññi ay poste ambassade ay affaire yu noonu mais ay ay dëkk yu mel ni Brésil nga xam nga ci biir Brésil rek pour nga pour nga mun pour nga bëgg ko survoler di nga def cinq heures de temps reste sept heures de temps ci biir Brésil pour mun ko survoler de même que aux États-Unis wala affaire yu demee noonu boo bëggee ci jóge ci benn euh, consulat pour demaat ci beneen consulat wala benn ambassade ci biir dëkk bi rek ça demande du temps. léegi ñooñu naka la ñu mën a def ñooñu naka la ñu mën a def ah ba jël ambassade yi nekk foofu walla consulat ya di leen supprimer loolu kon yow yaa ngi lor sa askan ba pare ñu ne déet na waaye nga dem jël jabaru ambassadeur yi ah di leen jox ay cinq cinq cent mille par weer or que ambassade bi ci boppam sax amuñu ay ay talon passeport ñi nekk foofu war a renouveler seen ay kii dañu am problème passeport ba tax ni que des fois dañuy yebal Sénégal ñu leen di wax ne noo foog ñu ñëw pour jël si seen empreinte xam yow léegi sénégalais yooyu yëpp toppatoowuloo seen affaire li gën a doy waar encore ñun fii par exemple en Italie depuis bi ñu fi nekkee pour léegi ay nit ñi di fi liggéey ba war a dem léegi retraite hmm. amul benn gouvernement boo xamante ni dafay ñëw sax wax na que retraite sénégalais yi fiy liggéey dañ koy toppatoo comme ni ko tunisiens yi amee marocains yi am ko. nigériens yi ñëpp am ko mais sénégalais yi ñoom fii en Italie mënuñu récupérer seen retraite au Sénégal da ngay fii gis fii ñoo xamante ne retraité nañ am na ay cinq ans six ans fi mu nekk nii ci ginnaaw mais mënuñu toog plus de six mois en dehors du territoire xanaa nga am na nationalité te boo amee nationalité sax euh, boo demee foofu bu matee un an rek dañ lay wax ne que foog nga defaat ay këyit yoo xamante ne daf lay wane ne que joxe ay justification fi nga nekk sa dëkk mais ay affaire yu kenn xamul lu mu mu demee te yeneen nationalité yëpp am nañ droit bi mais sénégalais yi amuñu droit bi jël seen seen seen pension Sénégal mu nekk ay affaire yoo xamante ne loolu ñoom dañ ko war a toppatoo mais léegi toppatoo ñu loolu dem di fay jabaru jabaru ambassadeurs yi ay cinq cent mille <laughs> bu fekkente ne am nañ ko ak suñu ressources naturelles yi mun nañ def sax ku liggéeyul ñu jox la deux cent cinquante mille mën na nekk. parce que boobaa xaalis day am fi mu nekk nii contrat bu ñu ko négocier bu baax ku juddu sax mën nañ ko defal deux cent cinquante mille déjà ci sa ci sa ci sa ci sa ci sa gafaka xale bu juddu ah comme ni ko ay euh, ay libi defee woo nag ay yeneen yeneen dëkk yi ak yooyu mais léegi danger bi moom mooy fi mu nekk nii ah dañuy jël xaalis yi ñoom di ko di ko sàcc di ko yóbbu ci yeneen dëkk yi. bu ñu ko yóbboo ci li yeneen dëkk yi fi mu nekk nii ay dëkk yu mel ni ay Dubaay ak ay Canada ak ay France ak dem jënd fa ay appartement dem jënd fa ay immeuble à la fin qu'est-ce qui que ce qui va se passer dañuy toog benn moment boo xamante ne ñoom bu leen neexee dañ lay jékki-jékki rek woo la ne léegi yow da nga war a démontrer naka nga def ba ba am xaalis bi hmm, pour affaire blanchissement d'argent léegi bés bu ñu leen laajee naka la ñuy def ba am xaalis bi léegi ils seront obligés de parce que duñ ko mën a démontrer. xaalisu senegal la ñu jël yóbbu ko à l'extérieur duñ ko mën a démontrer léegi bu ñu mënul démontrer loolu qu'est-ce qui va se passer dañuy récupérer xaalis boobu hmm? te sa yaa xeeti booli boo xamante ne dañ ko teg ci xew ñëpp war ko bokk lekk yow kenn nga bëgg ñëw uuf ko lekk ko yow kenn bu yàggee sa biir day xarte doo ko doo ko lekk da nga koy caxat caxate milliards yi ñuy jël di ko yóbbu à l'extérieur du pays ah dem nga eh, jël ko investir ko foofu mais ñun lañuy ñun lañuy sonal ak ak suñuy doom ak doomu baadoole yi te yow nit ñooñu mënoon nañ fa def ay liggéey yoo xamante ne dañ fa def ay liggéey yu mucc ayib liggéey yu mucc ayib du sens que ne ku ku ñëw ku ñëw euh, boo fi jógee tamit nit ñi nekk di di la woy parce que bi ñu bu ñu mënee wax tamit dañuy wax ne que au au début avec euh, kii euh, nu mu tudd. ab euh, Ablaye Wade au début ñun ñëpp dañ doon wax Mbàdd mu ngi liggéey dëkk bi mu ngi liggéey dëkk bi mais bu ñu demee ba ci fin ba ci deuxième mandat bi mu commencé def ay affaires yoo xamante ne moom dafa doon mel ni ñu doon saboté xam nga parce que ñëpp xeex pour pour Wade toog ñëpp xeex pour Macky Sall toog mais ku ci nekk boo demee ba ci biir dafay mel na ni yow li nga yore daf la ëpp doole bu ñu dellusee ci ay affaires euh, euh, nu mu tudd. ci ay affaire of nag hmm? gis nañ fi ay rapport yoo xamante ne def nañ ko fi def nañ ko fi président bi teg ci loxoom xam moom mooy kaawu kaawu euh, waajur Abdourahmane Agne kii kon pas astafurla kii euh, kii Agne bu bu bu kudd gis nañ fi kaawu Siré Dia bu post ba dernièrement dañu jëm di jël ay oto yi nga xamante ne ay oto post la ñu dem jël ko di ko di ko di ko defee ay campagne hmm? loolu moom loolu détournement de deniers publics la moom mooy que ne ay essence su post la ñuy def ak yëpp pour campagnal Macky Sall loolu dafa doy waar gis nañ bu démb bi xaw ma tey ñu gisati benn ambulance boo xamante ne ah ambulance ba dañ koy jël def def ci ay photo Macky Sall xam nga ba pare nag léegi ñu bëgg wax affaire ay ay professeurs yoo xamante ne dañu nekk. Euh, en Casamance joxe benn kii boo xamante ni dañ doon wax ne que dañ texte bi dañ ko bindee dañuy wane ne que ñoom ci coalition sonk la ñu nekk léegi justice à deux vitesses boobu doy waar lool lool lool te loolu warul warul Sénégal warul Sénégal loolu moo taxoon moo waxoon ne que nañ ci wax pour wane ne que yow mii yaa ñu diggoon lii hmm? yow euh, son excellence le président Macky Sall yow yaa ñu digoon di li ñu wax ne que boo ñëwee di ngay gérer suñu dëkk nu mu waree mais toog ba léegi ñu gis que ne affaire yi doy na waar lool boo demee par exemple en Russie ah nit ñaa ngi foofu am ay problème passeport ñu am ay problème bourse yoo xamante ne egsi wuñu fa waaw du ko day day day des propres sénégalais yoo xamante ne ah ils sont dans des problèmes yoo xamante ne euh, dëkk bi moo leen waroon taxaw te ba léegi kenn taxawu leen. beneen affaire bi moom mooy euh, affaire ressources naturelles yi ah yow bi euh, le président Macky Sall bi muy ñëw fii dafa waxoon ne que moom benn membre famille am ak yooyu parce que li ñu doon xeex ci Karim Wade nga xam ne dafa nekkoon demande sociale ñu ne benn membre famille am du du du dugg ci gouvernement bi bu rakkam xalaat mukk mu dugal ko ci gouvernement bi ah. tey jii ay membre famille am ay ñoom timbook ay ñoom ñu euh, mu tudd euh, comment ça il s'appelle encore euh, rakk ji Alioune Sall hmm, ay ñoom Mansour Faye frère du jabaram même building administratif bi ki ñu ko jox sax Bamba Ndiaye boobu deuxième femme am il paraît que moom mooy cousine u Marième Faye Sall xam nga foo xamante ne dañ doon wax 17 milliards lañ fay kii 17 milliards lañ fay investir waaw ah, ñu waroon ko def en trois ans. pratiquement ils l'ont fait en cinq ans def ko en cinq ans ba pare wëlbatu ko au lieu kon mu am ay pénalité ñoom ñu koy tegal xaalis sax di ko dollil ba affaire bi yegg quarante milliards léegi nga def building administratif ak quarante milliards moom ci boppam moo ñu waxoon ne que après au mois de juin deux mille seize non deux mille dix sept pardon moom dafa waxoon ne que euh, gars yi dañuy génn ci kii dañuy génn. Euh, dañuy dañuy génn jam ñaajo ñëpp dañuy génn jam ñaajo pour dem fële euh, euh, ñëpp dañuy génn Dakar ministère yëpp pour dem jam ñaajo jusqu'à présent benn ministère génnul génnul kii benn ministère génnul Sénégal génnul génnul Dakar pardon benn ministère génnul Dakar léegi nag léegi nag la ñu mën a d'accord par exemple un président boo xamante ni lu ñu wax du ko def président boobu lum ñu wax du ko def léegi ñu bëgg wax ne que kooku on va continuer avec lui mais c'est incroyable c'est inacceptable c'est inacceptable hmm? le président Macky Sall fi mu nekk nii bon man de man ci sama wàllu bopp man moom pare pare naa ci te li may wax moom damay jéem a damay jéem a orienter nit yi rek ku am leneen loo xamante ne da ko bëgg wax hmm? leneen loo xamante ne yaakaar nga ne. moom def na fi dara ak yooyu mën nga taxaw nga nga expliquer nga wax ak nit ñi beneen euh, kii bi moom mooy par exemple cinq cent mille emplois yi mu doon wax cinq cent mille emplois yooyu français yi la ko jox cinq cent mille emplois yooyu français yi la ko parce que gis nañ fi ay ay presque ay euh, entreprise française yoo xam ne dañ doon waaj a tëj mooy fi ñu defaree terre bi ah terre bi de cinq cent soixante seize milliards mu mujj yegg ba mille deux cent milliards te loolu yëpp pour pour pour pour quelle raison dem jox français yi jox leen ay ay ay outils de travail or que cinq cent mille emplois yi nga doon wax kenn nekkatu fa kenn amu ko amuñu benn cinq cent mille emplois boo xam ne gis nañ ko ci biir dëkk ba ah ay ay ay travail précaire rek lañ fa gis xam nga ñoo xamante ne dañuy ubbi seen entreprise pour ay deux trois mois après ñu mujj tëj parce que affaire bi dafay métti ñoom en ce même moment yow yaa ngi jox liggéey waa nu mu tudd yaa ngi jox liggéey waa France di leen di leen defal ay ay kii ay poteau lampadaire cinquante sept milliards ñu ne déet na waaye nga nga joxe terre bi de cinq cent et quelques milliards mais mujj gi sax da nga dem ba wax ne que comme que da nga war a def inauguration bi da nga bëgg ñu accélérer ko ah léegi su ko defee di nga leen tegalaat encore. cinquante et quelques milliards yoo xamante ne da nga leen koy dolli pour ñu mën a accélérer liggéey bi loolu c' est c' inacceptable waaw ñoo ngi ziar bu wër ñoo ngi ziar bu wër soxna maam la kii de sama soxna la <laughs> ak soxna Aminata ñoo ngi leen di ziar bu wër ndeysaan jërëjëf maam lu naka njaboot gi mbaa ñëpp jàmm ñoo ngi ziar bu wër ndeysaan xam nga yooyu dafa nekk ay affaires yu sensible yu bon yoo xamante ni warul am biir Sénégal. lampadaire yooyu euh, lampadaire solaire yooyu am na ay entreprise solaire yoo xamante ni ñu ngi Sénégal ñu ngay war a dooleel ñu jël main d'œuvre bi jox ko sénégalais ñu liggéey ñu ne déet na waaye encore nga demaat encore dem di wax teer bi terre baa ngi noonu avec tous ces problèmes la a créé à Rufisque dëkk bi xam bu fekkente ne dafa am benn nouvelle technologie boo xamante ne benn modernisation bu ñu war a indi Dakar tout le monde est d'accord. tout le monde et d'accord pour pour ñu moderniser Sénégal mais na tamit am nañ ay entreprise am nañ bopp yi am nañ xarante bi boo xamante ne les sénégalais dañ leen war a jiital ñoom léegi bu ñuy dem di uti ji hmm, ay partenaires français wala chinois wala kii ñoom ñoo xam mais ñoom nañu jiital liggéey bi parce que y des ingénieurs comme le président mag Sall ni mu nekkee ingénieur comme temps d'autres sénégalais yoo xam ne ay ingénieurs lañ c'est des grandes entrepreneurs ak yooyu. li nag nga mën a xalaatee bàyyi fi ay lu euh, euh, mu tuddati sax entreprise de batiment boobu hmm, nga xam ne ñoom ñoo defal Massalikul naan nga bàyyi leen fi ba pare dem di jël ay entreprise française wala ay ay Inde wala turc wala yooyu pour ñu ñëw defal kii lii Dakar Arena ba ñu ngi ko joxee Turquie bu ñu ko joxoon euh, waa CCE xam nga entreprise Aliou Sow boobu ñoom ñu defar ko après bu ñuy dem di uti ji feneen tam ñoom ñoo xam mais dañ koy defar. léegi pour lan président Macky léegi war a rey sunu sunu sunu économie pour jox euh, français te tey jii français yi tey bu leen neexoon tey tey tey tey ñu def ñu comme ni ñu def ni ñu defoon Gbagbo en Côte d'Ivoire xam nga tëj économie yëpp ni am fenn fu ñu jaar hmm? avec avec avec de des des des journalistes yoo xamante ne comme Cheikh Yérim Seck def fi ay révélation yoo xamante ne ñëpp dañu waar woon ci affaire ressources naturelles yi mooy li ñu jox li ñu jox euh, kii euh, nu mu tudd total parce que fii bu pensez un peu muy Italie muy France muy un peu partout di yaakaar nañu rek di dox ba gis Touba Oil wala Elton ci biir France ñu ubbi fa ent ñu ubbi fa station essence mais lu tax léegi sénégalais yi ñun du ñu gëm suñu bopp ah suñu suñu kii yooyu ay Touba Oil ay. ay euh, nu mu tudd mm, ay Elton entre kii yooyu société yooyu lu tax ñoom mënuñu ubbi biir Sénégal au lieu que Total ñoo di ñu di di ñu liggéeyloo ba pare ah jëlaat xaalis boobu yóbbu ko seen dëkk te duñ ci fay ay taxes duñ ci fay dara les Sénégalais ils ont droit ils ont droit mm, à travailler surtout nos entreprises ndax entreprises yooyu bu ñu liggéey ñoom ñooy jox liggéey les les Sénégalais euh, nu mu tudd. des employés sénégalais xam foog ñu am ay entrepreneur yoo xamante ne entreprise bu mag bi mu euh, kii entreprise bu mag bi muy Sénégal muy le chef du gouvernement moom moo leen di liggéeyloo ne serait-ce que sax mu boole leen ak ay yeneen entrepreneur defal leen ay lettre ki kii euh, créer ay lettre de crédit yoo xamante nii dinañ mun a dem di uti ci xaalis ñoo di indi mais Macky dañu xamul ci lan naka lay liggéeyee naka lay liggéey man nag dama koy wax comme un profane dama koy wax comme un profane kon xamul dara ci mbir mi parce que tout un chacun dafa am pour wax ku bëgg wax fii fi mu nekk nii boo demandé dañ lay dugal ci biir nga wax xam et c'est c'est très important c'est très important pour ñun ñëpp ñu génn wax li nga xamante ni kii parce que c'est c'est c'est c'est insupportable man dama xamul sax nu mu koy qualifier c'est insupportable c'est c'est c'est c'est c'est inadmissible xam nga ñu wax ne que jël nañ cinquante deux milliards cinquante deux milliards dugal ko ci ay carte d'identité cinquante deux milliards te ci biir carte d'identité yooyu amul kenn koo xamante ne amul kenn koo xamante ne kii nañ ko amul kenn koo xamante ne. Euh, wax nañu ne que am na beneen dëkk ci biir ci biir euh, Afrique ci ñu bokk ci CEDEAO bi bi ñoo xamante ne defoon nañ carte d'identité CEDEAO yi ñun rek ñoo fi am carte d'identité CEDEAO loolu loolu naka lañ ko mën a kii te cette même personne cette même personne mooy ki nga xamante ne mooy le ministre euh, comment il s'appelle encore euh, Abdoulaye Daouda Diallo Ah, moom mi defaloon carte d'identité yooyu le même ministre moom la ñu demaat ubbilaat ko ay beneen ent beneen kii ministère ah muy euh, ministre des des infrastructures ah pour pour mu demaat encore foofu di defaraat ay yeneen carte te 52 milliards yi réglé wuñ ko ñu demaat commencé di defaat ay carte pour permis à point ay mat matricule xaw ma jumelé avec euh, le permis à point ay affaire kenn xamul yooyu ay caaxaan la jël xaalisu dëkk bi rek di ko pasar pasare di ci def lu yooyu dafa war a jeex nag ñun ñoo war a mën a taxawu suñu dëkk hmm? loolu moo tax dañuy wax ne que fi mu nekk nii pour le 24 mu nekk voté par force voté par force dañu war a voté par force hmm. je suis vraiment désolé mais nag ku nekk fu mu nekk bu ñu la waxee ne que kii nga téléphoné nit boo xamante ne dina la mun a ñëw jël si boo boo yoree si kii wala am na ñoo xam ne sax ñu ngi joxe ay numéro téléphone da ngay dem foofu. bokk par force ci vote yi bokk par force fu ñu la mënti wax nga dem fa xanaa ñu nekk ñu am na ñu nekk Italie ñoo xamante ne sànq rek ko dégg benn waay bi wax ne que mu ngi dëkk Faenza ñu ngi ko jox euh, xaw ma cil mbaxam mbaakol xaw ma foofu la ñuy def centre de votam te moom mu bind woon itali joxe adresse itali yooyu c' est insupportable c' est inaccessible xam nga c' est inaccessible inacceptable pardon c'est inacceptable ay à la fois inaccessible parce que kenn mënu fi jóge fii naan da dem pour voter ji ba Sénégal pour dellu si waat xam nga li ñuy def yëpp ñoom ñoo ko tey léegi nag ñun mënuñu am confiance ci ay nit ñoo xamante ne ils essaient toujours de nous rouler dans la farine loolu c'est c'est ina c'est c'est irresponsable euh, du parti du gouvernement moo tax nag. on ne doit pas se, le, se laisser faire xam nga on a qu'à recommencer xam nga jéem a daanu jógaat la somme euh, des erreurs qui font l'expérience bu ñu fi tànnatee keneen tamit keneen kooku tamit bu defaatee les même erreurs tamit après on recommence après on recommence ñu bañ a sonn ci dara ba keroog ñu gis koo xamante ne dinañ kii mais cette fois si c'est la fois boo xamante ne bés bu ñu ratee mooy que ne raté histoire Sénégal. waaw parce que fi mu nekk nii ñii dañu taxaw pour jël dëkk bi tey la ko français yi tey la ko français yi mais non seulement français yi parce que second poste post a les turcs y a les marocains y a chinois y aussi les les les indes les hindous xam nga hindu yi fi mu nekk nii ñoom tamit ñu ngi bëgg rey les chinois mboq yi nekk même pakistanais yi sax dañuy dugg foofu ñu ngi jënd suufi xam nga ñu ngi leen di affecté ay suuf man man qui vous parle sama propre quartier Bamba Fall def na fa loo xamante ne maara day taali maara day taali dem jël école primaire dem dugal fa euh, nu mu tudd supermarché école primaire nga dugal fa supermarché loolu dafa nekk ay affaires yoo xamante ne doo ko gis fenn ci monde bi te loolu biñ ko xeexee biñ ko xeexee ba mu ba mu kii ba yaakaaroon ne que am nañ ci ndam mais après gars yi ñoom ñoo ko kii. après gars yi ñoom ñoo leen joxaat autorisation gars yi ñoo leen joxaat autorisation loolu dafa nekk ay affaire yu bon a bon a bon jox leen autorisation pour ñu dem ubbi supermarché ubbi supermarché ci biir kii ba ci ci ci biir école bi ci biir école bi ñu ubbi fa supermarché waa koñ bi ñëpp ñu ñuy wax ne que supermarché bi baax na fi mais école ak kii mënul mënul ànd. te loolu ñoom ñoo ko autorisé au début ñoom ñoo bañoon pour affaire boobu am à la fin ñoom ñoo ko autorisé loolu boo ko defoon tey ci benn dëkk boo xamante ne dafay mel ni comme ay France wala Italie gii ma nekk nii ah nga def ko fii gars yi dañ lay dañuy dee ci sa kaw dañuy dee sa kaw dootoo ko defati loolu ci eeru mag Sall rek la am parce que loolu yaakaar ne ne que dafay yaakaaroon ne que Bamba Fall après ndax Bamba Fall il a bouffé trois cent soixante millions kooku moom bu ma tàyyi du ko wax il a bouffé trois cent soixante millions léegi nga def loolu ba pare wëlbatikuwaat encore yaakaar ne que moom ci boppam Bamba Fall dina la indil waa Médina mais waa Médina dañu lànk ba ba kaare ndax ñoom kenn moomu leen kenn moomu leen ah te voté voté fi mu nekk nii Macky Sall moom mooy voté pour l'injustice parce que ñëpp gis nañ ku ko bëgg ak ku ko bañ gis nañ ñi ñu def Khalifa Sall. dëgg la ay fausse facturation fu ñu ko waxee loolu moom kenn kiiwuti mais ñoom xamoon nañ ne bu baax que ne pratique boobu lañ doon jaar pratique boobu lañ doon jaar pour def li pour pour pour def li ñuy def ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi def benn affaire boo xamante ne c'est ce ne pas du tout normal le le le président il a pratiquement quarante millions de francs CFA par jour. président de la république à raison de euh, huit milliards huit milliards et quelques par an loo xamante ne bu ko neexee sax mu mu taal ko yoonu yoonu kenn nekku ci ah loolu moo ko permettre fi mu nekk nii muy muy fay nit ñi ay deux mille ak ay kii pour pour pour gagner waat ay élections corrompre ay journalistes ñu koy bindal di ko defal lu nekk loolu suñu xaalis bopp la ñu ñoo koy jox ay armes pour mu ñu koy xeexaatee. ñu ne déet na waaye encore le le le cas de Khalifa Sall ñoom li ñu bañaloon Khalifa Sall ñoom xamoon nañ bu baax nga ne ñoom ñoom ñëpp loolu la ñuy def le premier ministre Boun Abdallah Dionne il a cent vingt millions par mois cent vingt millions par mois pour à raison de quoi te waru ci jox justification Moustapha Niass euh, assemblée nationale cinquante millions par mois xam nga pratiquement muy muy euh, presque soixante milliards euh, six milliards par par kii waaye euh, pratiquement non il a cinquante cinquante milliards par an cinquante milliards par an de même que Ousmane Tanor Dieng de même que kii comment il s'appelle encore. Euh, comment elle s'appelle encore Aminata Aminata Tall waaw yooyu mu nekk ay pasar pasare xaalisu réew mi yoo xamante ne teguñu ko fenn teguñu ko fenn bon am na daal ay ay affaire yu bëri yoo xamante ne war nañ ci mën a waxtaan ah, entre nous war nañ ci mën a waxtaan am loo xamante ne dañ koy bañ suñu dëkk ba kenn ëllëg ak si keneen ku fa ñëw du du fa du du ñu jaare man nag man damay def li nga xamante ne ah bu bu bu ma ci nit ñu fekk bu ma ci nit fekkee dama naan xeeru bu ma ci nit fekkul tam fekk na wax naa ko joytu naa ko yuuxu naa ko fu nekk te tey jii bu ma waroon mun a ñëw taxaw comme ni mu ko defee woon Sénégal bi Bamba fal yu jël supermarché boobu di ko dugal ci biir école comme ni mu ko defee woon foofu au Sénégal dama koy defaat tey dem taxaw foofu ne lii du fi am après bu ci sam bakkan di yem muy loolu parce que je l'ai déjà fait je l'ai déjà fait taxaw nañ foofu ne fii kenn du fi tabax supermarché ba ba état bi arrêté ko pratiquement à mon départ bi ma jógee Sénégal ba ñëw te la ñuy di dem di tabax kii boobu loolu mu nekk benn affaire boo xamante ne kenn xamul ci lan lañ ko basé kenn xamul ci lan lañ ko basé alors maintenant sénégal yi ñoom ñoo war a jël seen avenir xam en main yi ñoo war jël seen avenir en wax ne que lii fi mu nekk nii doy na basta basta bëggatuñu ko gis suñu dëkk waaw kenn ñuy bàyyi noonu rek muy dem lu lu wàcc suñu kaw ñu absorbe ko mu jàll kooku benn affaire la encore ci ci ci ci ci ressources naturelles yi man je suis un profane à la matière je suis un profane à la matière xaw ma affaire boobu naka lay demee ah mais nag tamit xam nañ ne que am na yenn ressources yoo xamante ne boo ko xasee ba am pétrole kese boo ko amee te pétrole fu mu am dafay amaale gaz loolu kese boo ko amee ah boo ko euh, pétrole kese boo ko amee rek mën nga ci gérer sa dëkk àla kulli yàllin da nga ciy génn moom la ay Dubaay yi am xam nga ay Oman nag yooyu seen dëkk yooyu ñu ngi clean waxatuma nag pétrole bi nga boole ko ak gaz boole ko ak zircon boole ko ak or xam nga ñu ngi wax ne que sax am na litanium xam nga boole ko fer fer li nga ci mën a liggéey kese ci fer kenn xamul nu mu toll fer kese boo ko amee comme métal duñ ci mën a liggéey kenn xamul nu mu tollu léegi nga boole ko phosphate kon du ko on a toutes les richesses qu'il nous mais nag bu fekkente ne yow da nga dem dugg ji ba pare nit ñi commencé tàccu di wax ni ku seen dugg bi baax na ku nekk di fecc di kii te yow xamuñu boo boo toggee xamuñu li ngay yekk lan la xamuñu ndax dina neex ndax dina xëm ndax dina tuuru ah ngay nekk di tëb di dal dem di lebi ji fu nekk pour ndugg te xamoo ndax yow li ngay dugg dina baax wala déet loolu Sénégal rek la am. yow dégg ne am nga am nga recherche recherche yooyu ngay dem naan da lebi ji leb boo xamante ne kenn xamul fan lay fan la fan kooku même entrepreneur bi gën a ndaw ci entrepreneur yi warul mën a dàkkur loolu ah bu ñu la waxee gestion des entreprises dañ lay wax pour ngay gérer di tamit euh, euh, di prévoir le future xam nga mais dem ci tubaab yi nga xamante ne. lu mu bon bon bon loo cuune cuune cuune cuune xam ne tubaab du def dara sans intérêt yow ñëw di koy àbb ay deux mille et quelques milliards yow mu jox la sept mille milliards ngay tëgg ay sabar di fecc ka dëpp ko daal te waa FMI ñoom ils t'ont dit <laughs> waaw waaw mais sa sa sa président moom mooy def loolu ak kii euh, Adja xam nga man daf ma wóor nekk man mii man man personnellement man lu ma xeex. pour Macky Sall ñëw au gouvernement surtout boo nekkee ci diaspora bi fii dañuy xeex di yëkkati suñu baat ci kaw ah ñu dalal ko ak boloj ak ndem si yàlla si li ko xam nga mu ñëw ak Arouna Coumba Ndoffène Diouf xam nga ñuy force gars yi ne leen kii moom moo ko yor te temps yi opposition bi yëpp ñu tëggoon assise yi yëpp ñu ngi foofu mais ñun dañ doon xeex pour mu ñëw au guvernement dañ doon xeex bu gagné ñuy feetu xam loolu c'était en 2011. ay booru mois de mais mai 2011 affaire yu demee noonu mu ñëw ñu recevoir ko defal ko ay teraanga xam soxlawuñu dara ci nguuram soxlawuñu ci dara bëgguñu bëgguñu ay ñeet dugg lu ñëpp bokk ngay dem di ci sax di jéem a këf dara wala nga ci laal dara mais au moins nga liggéeyee Sénégal loo xamante ne ah dina kii mais ku ci ku ci am dara as tuut rek commencé di waxee mais gauche. xam nga bu ñuy waxee nga naan nii di capp cappal xam nga mën sax euh, kii di def ay yëf ba pare boo nekkee ci biir tubaab bi ah, gën a gën a ñàkk jom koo gis ngeen baal ma ci waxin bi mais dafa amul benn teggin boo xamante ne dañ koy def ci kanamu tubaab yi dangay ñëw sax di jéem a wax ak benn tubaab sax mu lay jéem a moytu di la jéem a puus ci ay xale yu ndaw yoo xamante ne yaa leen mag fuuf Ah. yow nga am loo xamante ne tubaab yi amuñu ko ndax ay France ak ay Italie yi amuñu richesse bi nga xam ne Sénégal am nañ ko mais ils sont créatifs ils la tête mais ñun comme que amuñu amuñu xel amuñu xalaat ñoom dañuy ñëw rek ñu jël xam nga ñu utiliser comme ay marionnette tey bu ñu ñëwee dem ci président africain bi ne ko yooyu yaa fi nekk tu le plus gentil tu le plus beau kërëb kërëb nga bëgg photo ak ñoom pour wane ko fekk na ñu ngi wax ne regarde-moi ce petit nègre là ce con la affaire yu demee noonu di ñu xas di ñu saaga pour ñëw léegi jël ñu am pour yóbbu ko ndax cinq cent mille emplois yooyu euh, président Macky Sall di wax il les a donné aux entreprise bu naroon tëj foofu os am moom la dem jox liggéey boobu. entreprise boobu léegi di suqaliku ay employés am di suqaliku ñu waxati entreprise bi doon defar lampadaire yi cinquante sept milliards mu demaat joxaat leen ko ñooñu tam suqaliku waat te dañ doon waaj a tëj xam nga wëlbatiku encore ñooñu milliards yi ñu indi woon fii pour pour euh, milliards yi président Sall euh, kii Macron indi woon fii pour l'éducation balaa mu fi jógee mu signé fi trois cent et quelques milliards ba pare jaay ñu benn avion. boo xamante ne ñun dañ ko dañ ko ko delloowaat ci saa si yow ngay fecc nga ko waat encore bu ñëwaat joxaat la sept mille milliards ah yow nga nekk fii di fecc ci kaw lan ci kaw lan ci kaw lan ci kaw au su le dos des Sénégalais de toute façon yow boo jeexalee dem tamit après beneen président bu fi ñëwaat sax day wax ne ko ah non ñun duñ ko topp dara duñ ko topp dara parce que c'est un président loolu passé na mais loolu moom moo war a jeex Sénégal. Sénégal ah, loolu daf fi war a jeex dañ ko war a bannir ku fi war ku fi ñëw boo fi jógee <laughs> waa soxna si waaw man boo ma sànni ay xeer tam man ma jël ah man ma jël parce que ñun fii ah, man damay wax personnellement nekkuma fii pour wax sama histoire wala ay affaire yooyu ça n'a rien mais ñun fii dañ doon xeex fii en Italie xam man. Euh, en quatre vingt en quatre-vingt-neuf dama dama dem dama dem ci mur Berlin bi biñ ñu koy daaneel temps yooyu j'étais un j'étais un activiste boo xamante ne j'étais toujours sur le terrain di fighting pour génn ci xam nga di fighting pour génn ci lii euh, nu mu tudd pour génn ci injustice xam nga dem naa fi ba ay Dubrovnik xam nga ci ci ex Yougoslavie ex Yougoslavie bi ci traversé yu dugg foofu ci ay injustice yi fa doon nekk nekk jeunes activiste bokk fii en Italie bu ñu ñi nga xamante ne yàgg nañu Italie war nañ fàttaliku démocratie démocratie prolétaire ci faisais partie de leur liste maa nekkoon quatre-vingt-dixième personne bi ñu ma defoon pour provoquer le gouvernement italien pour ne que ne étranger yi dañu am droit pour voter loolu c'était en quatre-vingt-dix xam donc man dama mus a xeex contre l'injustice léegi nag pour lan ma war a ñëw ba sama dëkk nag léegi may gis injustice duma ci wax bu ma ko deful hmm, ça devient un de la lâcheté envers mes propres parent man hmm, loolu moo tax même bu may wax te kenn du ma faale même bu may wax kii du ma war a wax dama koy wax fu ma war a taxaw pour fight dama fay taxaw pour fight man je suis comme ça mun na am na nag man waa Sénégal ñu ma dégg ci dara wala à part histoire école bi ñu doon def foofu Gibraltar te boobu dama ñëw jote au devant xam boole ñett on était trois personnes yoo xam ne dañuy fayit muy muy feeñ xam nga ñoo taxaw ne leen lii du fi am Bamba Fall dañ ko mujj dem ba tëj chantier te ñu dem ba tëj chantier am li muy def nii yëpp di daw di wax te gauche à droite yëpp dafa am benn bor boo xam ne dañ ko ko lebaloon moom la war a fay. moom la war a fay parce que trois cent soixante millions la waa attaque autant attaque lañ fa buggoon def bu groupe Leclerc xam nga moo tax may wax ne que Mamour Diallo bu impôt et domaine li ko Sonko di wax yëpp dëgg la c'est de la vérité dëgg la parce que man je suis témoin ci Mamour Diallo ak Cheikh Tidiane Ba Bamba Fall li ñu def ci biir titre foncier bu Gibraltar man j'ai les les j'ai les dossiers maa ngi këyit yi xam nga ñooñu dañu dañu jël suuf suuf kii titre foncier bu Gibraltar dem bàyyee ko changé këyit yi dem bàyyee ko euh, français pour cinquante ans cinquante ans cent dix-huit mille cent dix-huit mille la ñuy fay pour deux mille cent mètres carrés regardez-moi cette lâcheté deux mille cent mètres carrés man waxuma woon sax bu nekkee ci biir école. mais jël suuf jël suufu Sénégal rek dem jox ko tubaab yi pour cinquante ans na leen fay leen cent dix huit mille nga xamante ne pantere ci biir Médina rek boo ko fa bëggee am tu fais tu payes plus de cent mille pantere kese location boo ko fa bëggee am tu payes plus de cent mille am na ay nit ñoo xamante ne seen kër yi amuñu sax ay fenêtre des fois bu ñu bëggee dem toilette dañuy dem tamit il paye il paye plus de soixante quinze mille de location yow nga jël deux mille cent mètres carrés ci biir école ci biir titre foncier dem jox ko tubaab bi loolu senegal rek lañ ko mës a mës a gis ci nguuru Macky bi moom laay wax waa Médina man leen yéen mi ngeen am nii ci nguuru Macky Sall dootu leen ko amati ba faw ba faw am cinq ministre de la république ñëpp dëkk ci biir Médina cinq ministres de la république ñëpp dëkk ci kaw ci biir Médina loolu ci nguuru Macky Sall bi rek lañ ko am après plateau Medina moo ci tegu te xool leen Medina nu mu salte xool leen Medina li muy liggéey ci xaalis xam nga non bu dul dara sax ci patante yi nga xam ne rek ñu ngi dugg ci biir Medina sans pour autant compter réseau Sonatel bi ah, la Medina kii euh, nu mu tudd euh, <laughs> Sonatel kese il paye plus d'un milliard nangam ci ci réseau Sonatel bi. ay s ay BCAO ay RTS xam nga ñaari marché marché Sandaga bi ñu transféré foofu ay 4DC ay ay kii euh, nu mu tudd euh, marché Tilène yooyu yëpp Bamba am ku du ko géré te saa yu xëyee di kaas ah ñun collectivité locale yi ba pare di ndax population yi bu jógee di wax kii euh, Aliou sàll xam nga day def nii day dugg fii day génn fii bu wëlbati koo dem këram toog di ngoyaan ba pare ñuy nax population yi di foo ci kaw popul ci kaw population yi te boo waxee mu naan day jaay kër te lépp doon ay tappale lekk xaalisu Medina bi yëpp kooku man je le dis à haute te ni mu koy waxee fii noonu laa ko doon waxee Sénégal ni mu koy waxee fii noonu laa ko doon waxee Sénégal mu dem toog ci télé yi lu nekk mu wax ko du fi mu nekk nii dañu war a jël suñu destin en main jël suñu destin en main mooy jéem xool. liñ fiy teg naka lañ ko fiy tegee capacité nit ñi parce que defe naa ne Macky bu fekkente dafa nekkoon troisième position hmm, ci période élection yooyu ci élection yooyu mu nekk troisième position ñun ñuy dem di di di di di di ko jàppale Sénégal yëpp wóolu ko fal ko à soixante cinq pour cent mu ñëw encore di def di def affaire yi ñu bàyyi fa Tanor ak euh, Moustapha Niasse yëpp ñu d'accord nag Macky Sall moo war a génn. moom moo war a jiite mu dem tey di def affaire yu mel nii c'est de la lâcheté quand même c'est de la lâcheté bu ñu waxee ne nag defar nañ tali defar nañ jam ñaajo defar nañ kii mais il a géré vingt deux mille milliards il a géré vingt deux mille milliards santé Sénégal baaxul santé bi sax ñoom fi mu nekk nii dañ leen tamponné mais fi mu nekk nii ils doivent de l'argent euh, kii euh, travail de la de la santé ils doivent de l'argent aux universités virtuelles ci njàngu xale yi éducation bi yëpp yàqu na ñu ne déet na waaye encore euh, kii euh, nu mu tuddee di sax ñii euh, waay non peut-être que après ma ma dellu si waat ci ñi nga xamante ne dañ leen dañ leen yoreel xaalis ah ba ci waa amaa yi amaa yi amaa Sénégal ñi nga xamante ne dañ leen yoreel xaalis Air Afrique bu njëkk ba yooyu yëpp les militaires retraités yooyu yëpp état mënul couvrir lépp mais dafa am benn minimum boo xamante ne ah li ñuy wax ni que l'eau et les de la vie dafa am benn minimum boo xamante ne nit ñi dañ ko war a am pour satisfaire seen ay besoins xam nga pour njàng bi mun a dem ci kanam pour des tas de choses yoo xamante ni ils doivent le régler quand même ils être sur le terrain et près euh, près de la des des populations pour pour satisfaire. pour satisfaire quand même. C'est un minimum ki nous doit. C'est un minimum qu'il nous doit. ci biir loolu euh, doon doon wax tamit euh, ci problème building administratif bi building administratif bi nga xamante ne ah, bi ñu ko construire ba pare bi ñu ko defaree ba pare jam ñaajo bi dafa ñëw taxaw jam ñaajo bi ñëw taxaw ils nous ont ne jam ñaajo dañ koy dañ koy kii dañ fay transférer ministère yëpp ministère yëpp dañu war a dem dem ñaajo ani ministère yi bañ ko waxee ba léegi ani ministère yi ministère yi nekkul foofu ba léegi kenn bougéwul fi mu nekkoon te dañu wax ne que dans un an dinañ dinañu économiser euh, ay ay huit milliards ah, ci biir ci ci biir kii euh, ndax circulation dakaar bi ak yooyu te gouvernement bi li ñuy li ñuy li dina mut ay ay huit milliards ci ay location ay facture de courant ak yëpp parce que lépp dañ leen di concentré à Diamniadio ba léegi dafa am benn ministère bu fa dem ñu ne déet na waaye encore priorité taxaw nga bàyyi loolu dem di wax ne que da ngay tabaxaat ay beneen pale hmm? du ko ñun quoi qu'on puisse diir Macky Sall bi xamul fu mu jëm xamul fu mu teg tànkam Macky Sall xamul fu muy jëm xamul fu muy teg tànkam. en ces mots je vous laisse ma ñëw ma ñëw quitté parce que fi mu nekk nii mu ngi commencé euh, guddi te dafa am ay affaires yoo xamante ne dama war a ñëw def ko après hmm. maa ngi leen di nuyu bu baax nag di tub bu baax te jëf jërëjëf jëfuti xéewal